asubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke suñu borom yàggal ko fi ba lépp loo xam ne bëgg na koo liggéeyal sëriñ Tuubaa Séex Ahmadou Bamba suñu borom may ko mu def ko tàndikook taalibe yëpp waaye ñu ngi koy ñaanal bu baax Cheikh Ibrahima borom Daarul Muxti muy sëriñ Abbas Mbàkke suñu borom yàggal ko fi ba lépp loo xam ni bëgg na koo liggéeyal Cheikh Ibrahima Faati am coono Ibrahima suñu borom may ko mu def ko tàndikook taalibe yëpp waaye mbokk yi ñu ngi ñaanal baax ak nuyu euh, Serigne Mamor Mbacke di xalifa Serigne Mor Diabou ñu ngi leen koy nuyu bu baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba lépp loo xam ne bëgg na koo liggéeyal maam ji suñu borom may ko mu def ko. kon mbokk yi nga xam ne yéen a ngi euh, bàyyi xel seen sit internet bu mag bi di Ndayane Vision ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi fii ci kër Serigne Mor Diabou di loxol nday jooru maam Thierno Birahim di ko wóoluwoon maam Birahim lool. Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba boole woon ko ak maam Thierno Birahim ñu ànd ci seen ànd bu boobu boobule ak seen liggéey bu rëy le ñoo fi itam ngir plateau boo xam ne dañ ko war ànd ak mbokk yi nga xam ni ñooy bàyyi xel Ndayane Vision ci bis bi nga xam ni euh, Serigne Abdou Khoudous Mbacke moom Serigne Moudou Mbacke Bari daf koy amal te bi nga xamee ni euh, moom la ñu moom la Serigne Mor Diop doon dem ci Darou Manane ngir xooli limu tubaab bi na mu toll te mu amoon ci ndigalu Serigne Touba Cheikh Bamba. bis boobu itam sëriñ Abdou Khoudous di ko taxawee saa bu ñëwee mu di ci fàttaliku sëriñ Mour ak di ko ci ñaanal bis boobu itam ci la nekk ci waajtaay yi mooy itam ñu bëgg ànd ak ak mbokki taalibe yi nga xam ni moom la ñu war a àndal ngir ñu waxtaane ci bis bi ren itam di sixième édition itam euh, bis bi saa su ñëwee sëriñ Abdou Khoudous tànn ci ñenn ci ñi nga xam ni mooy taalibe sëriñ Mor yi àndoon ak sëriñ Mor di liggéey jëloon seen lépp jébal sëriñ moor mu leen duppe bi ni mu jël bis bi duppe ko kenn si njabootu Serigne Mor Diabou doy la woon Serigne Mor Diabou lool di Serigne Aliou Dieye xam naa incha allah rabbi dinañ ànd ak euh, mbokk yi nga xam ne bu ñëwee incha lépp loo xam ne matoon na ci leeral incha allah rabbi daan ko leeral waaye incha allah rabbi euh, dinañ ànd ak ci plateau bi Serigne Adara Sow kennal Serigne Touba di ko ñëpp euh, ràññee ci biir réew mi ci bitim réew ñu rafetlu xam-xamam lool incha allah rabbi ànd ak moom mu war ñu waxtaanal ci kan mooy Serigne Mor ak dundum dunduk Serigne Mor ak dundug sëñ moor ci ci ci Daarul Moxti danaa itam mm, sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Taala Mbàkke mu war ñu waxtaan itam ci li nga xam ne mooy wàccaayu bés bi ak bés bi ak soxna Faati itam mu war ñu uh, waxtaanal ci ki nga xam ne moom la ñu duppe bés bi di sëriñ Aliou Dieye kon daal incha allahu rabbi noonu la ñu fas yéene tërle uh, waxtaan yi incha allahu rabbi bu noppee itam daan jox sëriñ Mamoor mi nga xam ni moo toogee jataayu sëriñ uh, sëñ Mor Jëbu mu mu mu ñaanal ñu ñaanal mbooloo mi kon sëriñ Aydara Sow ginnaaw bu ñu la nuyoo jaar la euh, ñu bëggoon a xam bu ñu la doon laaj kan mooy Serigne Mor ci ci ci ci ak dundam kan mooy Serigne ci ci ci ci dimb ci baax sëñ Eder Sow aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim waftah lana kulla baabil kunta faatiahu li saaliina min alxayraati yallaahu saddit lisaani nawwir janaani safil amaani wa baraa'i barke borom Touba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sunu yaakaar Seexul Xaddiim si Ahmadou Bamba Xaddiimi Rasuul te di ñaan sëriñ Muntaxa mi fi nekkal sëñ Touba yàlla mi tëliwul dara bàyyi ko fi yéene ji ma am ci liggéeyal sëriñ Touba yàlla àggaleel ko lépp barke borom Touba di ñaan it sëriñ Abbas mi fi nekkal borom Darou Mouhty di ñaan ci kàttanu yàlla mi nga xamante ne téeléwu dara sunu borom may ko fanu gudd lool waaye di ñaanal sunu kilifa gi nu toog ci wetam toog ci ëttam mu di sëriñ Mamor Mbacke xalifatu sëriñ Mor Jëbu mbakke noo ngi ñaan ci yàlla yàlla bàyyi ko fi di nuyu mbooloom yëpp di nuyu sama kilifa yi ma seqal jotaay bi muy sëriñ Moustapha Mbacke ak sëriñ Basirou Mbacke Euh, di la nuyu yow sëñ saw Sow yaak euh, sëriñ bi ngeen àndal sëñ Moustapha ci seen barab bi mu di ndaayaan Vision ñu ngi leen di nuyu baax te di ñaan ci yàlla mi amee kàttan di yëkkatee yàlla na yëkkati tele bi barki borom Touba am mbégte bu baax nag ci euh, fekkewaat jotaay bi ginnaaw loolu mooy nuyu sëriñ Abdou mi nga xam ne suñ borom dogal na at mu jot muy taxawe bis bi ren di ci juróom benneelu at bi ngir jëmmal ak di fàttaliku jëmm ju màgg ju tedd ji mu di sëriñ Mor Jëbu Mbàkke euh, sëñ Mor Jëbu nag ni nga ko waxee soo ko dee taarixal mbaa nga di ko melal dangay ngay melal nit koo xam ne ku làq ngërëmul yàlla la waaye di melal nit koo xamante ne ku liggéeyal boromam la waaye di melal nit koo xam ne ku nangu dogalub yàlla la nangu dogalub yàlla bi moo di sëriñ Tuubaa li nekk ci moom coobare yàlla la képp koo xamante ne ànd nga ca ak moom bëgg nga yàlla waaye yaa ngi wut yàlla waaye nangu nga dogalub yàlla rawatina nag bokk gi mu bokk ak Serigne Touba deret bàyyi léppam jaayante ak moom jox ko boppam ba tey sunu borom may ko ngërëm lii mu boole kook sëriñam bu mag ba Cheikh Ibra Faati borom Daarul Moxti sëñ Mor Jëbu nag boo ko dee melal ndax dana baax lool ci nituk yàlla soo ko dee waxtaanee nga waxtaan boo ko dee taarixal nga wax gane àddunaam Euh, du ca wàññi dara ndax dana tax soo waxee ci moom yenn xar baax yi wax ci moom yenn may yi nit ñi dana xam ne lii la xar wa doonut lu jomb ndax alquran ne woon na wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi isni rabbihi wala si xabsa laa yaxruju ilaa nakida comme suuf su baax mooy génne gàncax gu baax am na ñoo xamante ne bu ñu feeñee ci askan danañ séentu ci ñoom ak baax dafa ngoykatu arab waxoon ne innal fata man yaqulu ha anasa laysal fata man yaqulu kaana abi nee na waaj a dëgg daal nekkul naan diwéy sama baay nee na waaj dëgg mooy bu diw doonee baay mu def effort kon day am yenn askan yoo xam ne boo ci bokkee danañ séentu ci yow ak mbaax sëñ Mor Jëbu nag mi ngi bokk ci askan wi nuy wax Mbàkke te Mbàkke sëñ Tubaa mi nga xamante ne man nga ne moo yëkkati Mbàkke sëñ Tubaa waxoon na ni askanu Mbàkke ñaara ngi nii dama ko cee fekk waaye eh, defuma ko ci mooy gaaw a mokkal alquran ak fonk kilifa mm. sëñ tubaa nee na askan wii di askanu mbàkke ñaara ngi nii dama ko ci fekk waaye defuma ko ci ñuy gaaw a mokkal alquran ak fonk kilifa mbàkke googu nag ci la sëñ mbàkke moor and ci la sëñ mbàkke moor jëbu feeñ bokk ci euh, mi ngi feeñ jamono atum 1868 ca dëkk bu ñuy wax mbàkke jolof nekk ca suufu jolof ca booru mbàkke baari jolof ci la feeñ ci diggante way juróom ci ñaari way juram yu tedd yi muy Serigne Mbacke Mati ak soxna Jëbu Jóob ci ñaari way jur yooyu la sëriñ Mor Jëbu feeñe bi mu ci feeñee itam yàlla mi nga xamante ne mooy dogal euh, fii doomi soxna yëpp di jaar comme feeñ na Mbacke Jolof ci diggante ñaari way juram yu tedd yi mu di Serigne Mbacke euh, Mati ak sëriñ Mor Jëbu euh, sëñ Mbacke Mati ak soxna Euh, jëbu jóob mu feeñ ci ñaari wayjur yooyu bi yàlla dogalee loolu nag moom sëñ euh, Mor jëbu nee naa la ci askanu Mbàkke la bokk kon ki may seetaan baa di ma déglu dana ma laaj nu mu ci bokke euh, sëñ Mor jëbu sëñ Mbàkke Mati mooy wayjuram sëñ Mbàkke Mati di doomi ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Xari Jóob sëriñ Ahmadou Xari Jóob di doomi maam Maharam Mbàkke maam Maharam nag moo décentralisé li nuy wax askanu Mbàkke maanaam mooy ki nga xamante ne soo doon wër askanu mbàkke maanaam mooy datt ba bu askanu mbàkke doon garab ba wala boog mooy mooy mooy cosaan la ndax maaram mbàkke ay woy juram soo leen toppee dañuy dem ba ci xabila xeet gu ñuy wax alu du nan la sëti seyduna asan la asan di doomi fatima fatima di doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon askanam boo ko toppee askan wu baax lañ ay sërif lañ ay surafaaw lañ sëñ Tuubaa mas naa toog ci njaareem am kuy waxtaane ba tudd genn xeet ci xeeti sërif yi sëñ tubaa daal di wax ne ñu de suñuy bokk lañ kon loolu la muy firndeel mooy ñoom ay surafaa u lañ sëñ Mor Jëbu nag foofu la bokke mooy sëñ Mbàkke Mati mooy way juram sëñ Mbàkke Mati sëñ Ahmadou Xari Diop sëñ Ahmadou Xari Diop Maaram Mbàkke kon day mel ne boo nee Sëriñ Tuubaa ni sëñ moor Anta Sëli da ngay wax ne Maam Balla Aysa Maaram Mbàkke kon day mel ni sëñ Mor Jëbu day doon rakk ci sëñ Tuubaa sëñ Mbàkke Mati bokk ak sëñ Mor euh, sëñ sëñ Mor Anta Sali seen ñaari wayjur yi bekk bokk wenn wayjur muy Maaram Mbakke kon ci wàllu jaar-jaaram wàllu askanam muy nasabam di mbokk foofu la sëñ Mor Jëbu jaar sëñ Mor Jëbu itam doomi soxna yépp fi ñu jaar la jaar bi mu tollee ci wàllu dal jàng wayjuram sëñ Mbakke Mati na sëñ Mati moo ko dalal fële ca euh, dëkk ba muy Mbakke Jolof jàngal ko alquran ba lu doomi soxna euh, war a jàng mu jàng ko lu doomi soxna war a xam mu xam ko waaye buñ nee sëñ Mor Jëbu di ko melal day am lu tax ñu melal ko hmm. sëñ Mor Jëbu bu bokkoon ci askanu Mbàkke doy na hmm. waaye li tax ñu di ko tudd ak li tax ñuy def bis bi ak lu tax ñu di ko waxtaane hmm. mooy alaaka relation ak sa digganteem ak Serigne Touba li ko waral mooy sëriñ Touba dafa amante woon ak wëlëre lool way juru sëñ Mor Jëbu muy sëñ Mbàkke Mati sëñ Mbàkke Mati bàyyi la ci sëñ Touba sëñ Tuubaa yàlla da koo mayoon bi fi way juram nekkatul sañ Mor Anta Sali ñi fi desoon di ay way juram daf leen a jàppe woon comme way jur gisoo sëñ euh, Mbàkke Kajoor baay Mbàkke la ko daan woowe sëñ Mbàkke Mati moomu ay ay ay ay maanaam ay wëllëre lañu woon sëñ Tuubaa daana seeti Mbàkke Jolof te xam nga sëñ Tuubaa amutoonuk jot maanaam sañ Moussa Ka dafa ne bu nekkul di bindit ma nga yëriy mool kooku amutoon jot bu nekkul di bindit ma nga yëriy mool sëñ Moussa ko wax ne ko day dox ci jaww de njanaaw di xotti diine asamaaw lu mu wax fa diwaan ñu ne waaw muy fal di folli di lu wér du tëdd guddi maanaam day bind guddi du nelaw bu jëmm yëpp ne selaw mu dem ci pay bu ne xelaw bu bët setee mu dina wax kooku amatoon jot waaye ñàkk gi muy ñàkki jot ak jotam boole woon na ci sëñ Mbàkke Mati ba daana ko seeti nekk Mbàkke Baari Jolof nekk Mbàkke Jolof di ko seeti ngir relation bi waaye ngir bàyyi mu doon bàyyi ci moom ba la dogal ci tënk euh, yoon wu mujj wi mu ko mujj seeti comme ni ñu ko waxee léegi mhm. yàlla dafa dogal yoon wi mu ko mujj seeti sëñ Mbàkke Mati di gunge sëñ Touba sëñ Touba ne ko baax na man ngaa dellu ci kër ga sëñ Mbàkke Mati mel ni ku ko déggul sëñ Touba doxaat tuuti bamtuwaat wax ja ne ko man ngaa dellu ci kër ga mu mel ni lu ko déggul ba ca ñetteelu yoon wa la ko sëñ Mbàkke Mati doog a dégg ne ko Mbàkke man day dellu ca njaboot ga baax na lool waaye nag damaa gis ci yow lu ma gënal may dellu ca njaboot ga mhm. foofu nag mbokk yi bala maa jàll nañ leen jàngat mhm. xoolal doom ni mu neexe alxuraan ne woon na innama amwalukum wa awlaadukum fitnatun yàlla nee na seen alal ak seeni doom fitna la fi mu ne doom mooy reeni xol njaboot mooy reeri xol te jamono ju naqari jooju nga xamante ne da am doom mu doon ku sécuriser di la bàyyil ngay dunde doon koo xamante ne sa doom mooy sa reeni xol moo lay wéttali ndax bokkutoon ak jamono jii ñu toll nga xam ne dafa yomb li nit ki man di gis ci nit ba nar a bàyyi ak njabootam loola rey na te mag mu toll noonu nga xamante ne sa wéy jur la ne léegi bàyyi njaboot gi topp la damaa gënal léegi loolu kon li muy teg tegtale mooy sëñ daal moom mayam yi euh, maanaam day safaanub gaa yi li tax ma ne day safaanub gaa yi mooy euh, doom maanaam bàyyi nar a bàyyi doom ngir topp la doom nara a wéy bàyyi wéyu bàyyi wéy jur ngir topp la kon sëñ Tuubaa ay mayam bokkut ak may ña fi woon sëñ Tuubaa xam na ko ne ko dellul ca kër gi boo delloo ci kër ga kañuy wax moor jëbbu wala kañuy woowe moor nanga nga ma ko indi ca loola nag mooy li waral sëñ Mor Dia bu topp Serigne Touba way juram jël ko boole ko ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye bi mu ko booleeg Serigne Touba sëñ euh, Mor Kayre daa wax ne sëñ Mor Kayre euh, sëñ Samba Diarra dafa wax ne ñi jébbalu raw nañ seeni maas nee yoonu sëñ Touba yi jébbalu raw nañ seeni maas maanaam sëñ Touba ku la laal maanaam ku ko laal day da ngay gën ku ko laalut sëñ Jéeri waa dan sugu daa waxoon ne ku ma laal baax ñu ne ko la tax mu ne damaa laal Bàmba ñu ne ku ma laal baax ñu ne ko tax mu ne damaa laal Serigne Touba Xaadimu Rasuul te sëñ waa daan magee na Serigne Touba juróomi at tuddee ko ay doom laataa mu di ko gis doon ko ko ci bàttin nee na sëñ Touba ci bàttin laa sosante ak moom euh, kóllëre tudde na ko ay doom laataa muy gis sëñ Touba Xaadimu Rasuul moo xam ne ku ma laal baax li ko waral mooy damaa laal sëñ Touba sëñ Mor Jëbu nag noonu la def ànd ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul ca Touba mhm. kon moom ci Touba la ànd ak moom du ma ne àndub ñu boole kook moom waaye ñoom ci ay wayjur lañ ànd ci ak mbokk lañ ànd waaye li ñuy tuddee njëbbal nga xam ne yoonu yoonu jaayante la bala cee kenn am dara da ngaa jaayante sëñ Tuubaa daa woo woon sëñ Fallu sëñ Mor Roqee Buso sëñ Masamba sëñ Mor Musaa ca Jolof ne leen li ma yore ma doon sa baay taxul nga am ko ma doon sa mag taxul nga am ko ngay sama jarbaat taxul nga am ko bu nee ma doon sa baay sëñ Mor Musaa ak sëñ Fallu lay waxal bu nee ma doon sa nijaay sëñ Mor Roqee Buso lay wax bu nee ma doon sa mag sëñ Masamba lay wax daal ne li ma yore lenn dongay tax nit am ki am ko mooy jaayante jébbalu doonub taalibe jaayante jëfi ndigal bàyyi tere ca la sëñ Fallou jaayante woon sëñ Mor Jëbb nag ak jaayanteem biir Touba la boo xoolee jaayante gi 1893 la kon day mel ni bi sëñ Touba sañcee Touba 88 9 10 11 12 13 ci juróomi at la sëñ Touba nekk Touba sëñ Mor Jëbb dugg ci loxol sëñ Touba léegi nga xool 93 14 15 ñetti at wala ñaari at ak tuuti la sëñ Touba am Touba. dem ci géej gi ndax 15 mois de mars la def lixtikaaf ci jàkkay daarul xudóos ja yonent bi gis ko jox ko mission bi mu war a liggéeyal suñ borom ca la dem sañc Mbàkke Baari Jolof juróomi at la Mbàkke Baari Jolof kon bi sëñ Touba di jógee Touba di dem Mbàkke Baari Jolof daa ànd ak sëñ mbakke Mor Jëb ak borom daarul moxti ca la jële woon njaboot gi jox ko borom daarul moxti dem ci géej gi waaye nag diggante boobu ci ngay wax ne sëñ Mor Jëbu ci la tàmbalee lu jiitu loolu bi mu jébbuloo ci moom li ko sëñ Touba njëkk a def loo daf ko wax ne ko sa barab bu maam Balla sa ba demal nga ñage ko wax naa ko léegi demal nga ñage ko mooy demal nga sàmm ko ba du ne tey jii tey ku jóg dem ca barab bu maam Balla Aysa ba siyaare ji ko na nga sant sëñ Mor Anta Sali sëñ Mor jëbu yi wu ci woo ci am sëñ Mor jëbu da cay am ndax tey bu fekkoon ñëgu ko mbaa toppatoo wuñ ko est ce que barab ba du raaf est ce que danañ xamante kon loolu liggéey bi am solo maanaam li mu njëkk a liggéeyal ci kaw suuf mooy dafa doon barab bi ko sëñ Touba ñagloo muy barabu Serigne euh, ba Mame Balla Aïssa ginnaaw bi sëñ Touba dem ci géej gi bàyyi ko fekk borom daaroog njaboot gi sëñ Mor Jëbu mës ta tekki ak laxasaay sëñ Mor Jëbu mës ta tekki laxasaay mës wax ne sonn na maanaam mës ta doon koo xamante ne borom daaru day day day naan guddi na mu ne bëccëg na lu borom daaru ne guddi na mu ne guddi na lu borom daaru ne bëccëg mu ne mu ne bëccëg na kon loolu ngay jàpp ne sëñ Mor Jëbu ak tàmbileem li ko booleeg sëñ tubaa loolu la waaye nag sëriñ tubaa moo ko woo ne ko Mor Jëbu Cerno Mor Jëbu wala borom daaru yéen ñaar seeni mbir dëppoo na moo xam ne Sëñ tubaa du waxee ci bakkan seeni mbir dëppoo na baatu zaayir la waaye baatin lay wone li tax baatu zaayir la baatin lay wone xoolal sëñ Mor Jëbu li mu taxawal borom daaru ci biir daarul Muxti bu sëñ tubaa borom daaru mooy adadu ay nam adadu ay man maanaam loxo nday jooram waaye sëñ borom daarul Muxti sëñ Mbàkke Mor Jëbu mooy loxo nday jooram kon lam waxoon ne yéen ñaar seeni mbir dëppoo na dëppoo googa baat bi zaahir la waaye nag baatin lay wane hmm. dëppoo gi mooy soo xoolee ku ñu booleel 1893 ba 1934 mësoo génn ci loxol kin la booleel xanaa loolu mooy dëppoo gi leer na hmm. léegi xoolal 93 893 984 934 laa bëggoon wax 934 kon ñaata at la nekk ci loxol borom daara comme la leen Sëñ Tuubaa waxoon ne yéen ñaar yow sëñ Mor Diabou yoralal borom daaru saayir ji mu yor baatin bi su ëllëgee maa leen di yor kon demee la sëñ Mbàkke Mor Diabou noonu la demee ci diggante ay waajuram ci taarix fi mu bokk waaye noonu la demee ni mu duggee ci loxol sëñ Tuubaa waaye noonu la deme itam ni mu duggee ci loxol borom daaru Muxti ba am ndam li ba am sëñ Seex kon incha allahu taala ba ci kanam bu soobee yàlla. barakala sëriñ Aydara Sow euh, noo ngi lay sant bu baax te di la gërëm euh, ci noonu nga xamee noonu nga ñu ñëwalee euh, ci sëriñ Mor taarixal ñu ko ba tubaarkàlla mu leer waaye sëñ Aïdara xam naa du ma la du ma la bàyyeegun comme ni nga ko waxee rek euh, boo dee xool Serigne Mor moom ak euh, maam Thierno Birahim ñoo bokk lépp waaye dafa jaay lépp nag daal koy jënd ak taalibe euh, bi leen Serigne Touba di boole wax na da ko wax ne ko boo demee mu Thierno moom mu yor baatin bi moom nga yor si mu mel ne itam loolu bi mu itam gis na ne Serigne Mor Diabou jëf na ci jëfin woo xam ni maanaam waa Darou Mouhty loolu kenn dootu ko fàtte ci ci ci ay réalisation yoo xam ni def na ko ci biir dëkk bi bëgg na nga ñëwal ci loolu sëñ Aïdara. Hmm. waaw kay jërëjëf sëñ Cheikh xam nga sëñ tubaa mi tànn du tànn lu noonu sëñ tubaa mi tànn du tànn lu noonu sëñ tubaa mi tànn sëñ moor jëbu boole ko ak borom daarul moxti xam na ne liggéeyu borom daarul moxti sëñ moor jëbu mënu cee ñàkk danaa la dellul ci ginnaaw sëriñ tuba dafa waajoon ba bëggoon a dem gànnaar ñii ne wuti xam-xam ñii ne dem ci nit yàlla yi ngir sàkku ci ñoom yàlla ngir bëgg gi mu bëggoon yàlla hmm. bi mu tàggoo sëñ Mor Anta Sali way juróom daf ne ko sa way jur wii di soxna Faati Isa am na mu àndal saa su ganee àddina di jigéen saw yoon taxaw na hmm. waaye bu dee góor nag toogal sa ñaan dana nangu moo la yanoo yan bi loo bëgg ci yàlla dana la ci jàppale loolu booleeg yàlla la 62 hmm. borom daaru gane àddina ca poroxaan sëñ Moussa Ka nee na borom daaru dafa njëkk sëñ Moussa Ka nee sëñ Tuubaa dafa njëkkanteeg way juram néeg bi sëñ Mor Anta Sali jiitu ko ci génn teg ko loxo ne ko santal yàlla sax ñaan nangu na kon borom daaru ak sëñ Tuba seenug boole yàlla la ndax sëñ Mor Anta Sali dafa mel ne yàllaa ko wax ne ko euh, sëriñ Tuba mi mbiram li koy defar mbiram li li li ko ciy jàppale moo di borom daarul moxti kon borom daarul moxti su sëñ Tuba jëlee sëñ Mor Jëbu boole ko ak borom daarul moxti mooy ñoom ñaar ñoo war a ànd mooy ñoom ñaar ñoo na li ñu waree ànd itam ay li mu réalisé ci daarul mokti li mu liggéey ci daarul moxti soo xoolee sëñ Mor Jëbu bi sëñ Tubaa demee ci géej bàyyi Mbàkke baari Jolof boroom daarul moxti ak sëñ Mor Jëbu ak mag ñi ba kër ga lakkee sëñ Musaa Ka nee na kër ga lakk ceerno lakkaat mooy defaraat ba kër ga lakkee ñu jóge fa dem guy nguraa sëñ Mor Jëbu tàqalikoo wut ak boroom daaru ba juróom-ñetti nit di faatu ca Mbàkke sëñ Mahamadou Yadalim sëñ Tubaa faatu siyaare naa bàmmeelam sëñ Mouhamadou mu sëñ Fallou moo ko defar sëñ Mor bu tàqali koo wut ak borom daru te waxuma ànd goo xamante ne da ngay ànd toog di xool waa waaye lu borom daaru yëkkati sëñ Mor bu jàpp ci lu borom daaru soxla sëñ Mor bu defal ko ko kon ñoom ñaar ànd googu sëñ Touba xamoon ne lii la bi loolu i amee itam 1912 sëñ Touba bind ab leetar ñii ne nañ sëñ Amsatu Jaxate la ko jox ñii ne keneen jox ko borom Daaru Muxti bind ca leetar ba bismillahi rahmaani rahim min tahiyatil mubassirati faqad usina lakka fii binaa it tilka daari wa fil xafri wa ismuha daarul muxti wa aleykum salaam yubassirukum xaysu kuntum daal di wax ne yow no ginnaaw basmala wa bahdal basmalata min tahiyatil mubassirati ginnaaw bismillahi rahmaani rahim ji soo gisee sama leetar bi digal naa la nga sanc ab dëkk tudde ko daarul muxti keroog ba borom daaru muxti di bàyyi ko euh, nu ñu koy waxee Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor it diir ba fa borom daaru nekk mook sëñ Mor Jëbu ñoo fane ne ci gëstu yi ma doon def ci sëñ soxna Maam ma Sëy xam nga Maam Mareema Sëy dafa siiw ne sëñ Touba moo ko jox borom daarul Muxti loolu siiw na Cheikh Ibra Fall moo ko jox sëñ Touba sëñ Touba jox ko borom daaru Muxti moo tax sikarkat yeeg woykat yi di wax naan benn bopp ñetti ndaa benn bopp ñetti ndaa ni nga koy firee mooy yanu na ngërëmul Cheikh Ibra Fall moom Maam ma Sëy liggéey na ci kër sëñ Touba ñetti weer ci njaareem ba sëñ Touba gërëm ko waaye itam liggéeyal na borom Daaru Muxti ba am ci naa Ousmane moo tax woykat yi naan benn bopp ñetti ndaal fi ne ñu bëri xamuñu baat boobu léegi nag euh, gëstu bi ma doon def ci soxna maam ma Sëy nee nañ borom Daaru Muxti xam na soxna maam Mariama Sëy lu jiitu sëñ Tubaa di ko jox ndax sëñ Mor Jabu la sëñ Tubaa yónni woon Cees mu am lu mu ko fay topp tool sëñ Mor Jabu xool soxna maam ma sey fekk soxna maam ma sey maamam ju ñuy wax soxna Penda Njaay Jóob moo ko yar jàngal ko liggéeyu jigéen mu daan cuub di jaay soxna maam Mariama Sey xool sëñ Mor Jëbb sëñ Mor Jëbb xool ko mu xam ne kii am na lu mu làmbool sëñ soxna maam Mariama Sey yëkkati addiye jox sëñ Mor Jëbb borom sëñ Mor Jëbb bi mu dellu see ci borom daaru la ko gaaral mbirum soxna maam Mariama Sey ginnaaw bi Cheikh Ibra Fall jël soxna maam Mariama Sey jox ko sëñ Touba mu nekk ci këru njaareem gi di fa liggéey ñetti weer diiru booba la sëñ Touba jël Euh, soxna maam Marème Seye jox ko sëñ ba wax nañ ne leetar bi doon sañ ci daarul moxti ak soxna maam Marème Seye noo ànd bi ñuy sañ ci daarul moxti añ bañ fa njëkk a togg soxna maam Marème Seye ñoo ko togg ci gëstu yi ma doon gëstu nee nañ doma daala loolaa waral sax ca bu njëkkoon waa daarul moxti buñ màggalee ba ci suba sa di togg doma daa loola lañ ca doon barkeeloo waaye sëñ Mor Jëbu moo ko njëkk a junj euh, borom daarul moxti kon da lay tegtale ne mooy borom daarul moxti lépp lu masaan soxla rek sëñ Mor Jëbu da cee taxaw bi mu dikkee Daarul Moxti itam sëñ Mor Jëbu borom Daarul Moxti jox ko dëkk bii di Daarul Moxti mu di ko atte te mbokk yi loolu moo gën a doon responsabilité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na attekat yi ñett lan kenn ke ci dugaal janna nag attekat yi moom waaw am nañ responsabilité bu rëy nee na attekat yi ñett lan kenn ke ciy dugaal janna yaa yaa ngi dégg waaye sëñ Mor Jëbu nag boo ko doon dugal da koy dugal ca ña yàlla gërëm ndax li waral mooy sëñ Moussa Ka nee na fukki at ak juróom yor na ko daarul moxti mësta yàq mësta jaxase loolu nag jafe na fukki at ak juróom xanaa xamoo ni benn bis rek nga yore ko ab dëkk loolu lu jafe la waaye nga yor ko fukki at ak juróom law bi jooyut pël jooyut naar jooyut mbàkke mbàkke jooyut kon loola doy na sëkk beneen bi itam mooy ci taxawaayu sëñ Mor Anta Sali ak sëñ moor Jëb ak matam mooy boo xoolee bi soxna yi fi sëñ Tuubaa bàyyi woon maa ngi jégalu ci baat bi bi ñu soxlaa koo xamante ne da leen di yoral njël li di leen yemale ku war a jël juróomi téeméer mu jox ko juróomi téeméer ku war a jël ñetti téeméer mu jox ko ñetti téeméer ku war a bojjal ñetti sàq ñu bojjal la ko loolu yombut ndax léeg-léeg doomu aadama ñu jox ko ak kër mu am ku ko ci gën a neex te kër gi kenn ku nekk bu ñu xëyee dañ laa war a jox 3000 ka ko ci gën a neex mu koy jox 4500 loolu du maandu ak donte sa wëlëre la loog du maangu bi nga xamante ne yàlla dogal na sëñ Musaa Ka nee na ñu raas raas murit bu man loolu amut néew ma ña fa nekkoon nag dañ ko mënul waaye sëñ Moussa Ka nee na ñoo raas raas murit man loola amul sëñ Aliou Niang moo wax ne kenn laa xam ne mot na te man na ko muy sëñ war jëpp mbokk yi loolu li muy tegtale mooy mot gi mu woon nit ñi ak jom jéeg fulla jéeg ragal yàlla ji tax na lépp lu baax lu nu tële ñu ne sëñ Mor Jëboo ko man kon loolu day teg tegtale taxawaayam ci daarul moxti waaye day teg tegtale taxawaayam ci diggante njabootu sëñ Tuubaa gi ak borom daaru moxti bi yàlla dogalee itam daaru mu si am borom daaru jox ko atte bi autorité coloniale yi fi nekkoon ak chef de canton yi ñoo dajaloo waxtaan ni sëñ moor Diabou daal ni mu yore village bi mu jiite benn chef de village bu nekk ci Sénégal musu ko yore ab village am loolu doy na sax loolu nag sëñ bi moom nañ ko xoolaat maanaam ñi la féete kaw say kilifa ñoo taxaw ni waa su ma nee say kilifa mooy ci wàllu euh, adduna ñoo taxaw ni sëñ Mor Diabou ni mu yore chef de village su Daaru Muxti kenn koo xamante ne jox nañ la village nga yore ko gisuñu ko ci Sénégal loolu moom ñoom ñoo ko seereel daaru séereel luñ ko waaye ña nga xamante ne ñooy fale ñoo ko ko seereel kon nag loola la muy tegtale mooy ak maandu ak ragal yàlla beneen bi daarul moxti gii wax nañ ko léegi soo xoolee maanaam li ñuy tuddee maanaam daarul moxti yoon wu jëm daarul moxti mbaa yoon wu génn daaru moxti moo ko fi def loolu doy na sëg Touba ba daarul moxti moo xàll yoon bi hmm. wax naa ko léegi jamono jooju machine yu lay xamal ne da koy teg machine yi di la woon fii ngay xool ci ordinateur yi gars yi liggéeyatul ndax mbir yi daa yomb léegi hmm. takk ay weer wàcc ko fii rek di xool ci ordinateur yi mbir yi yomb bokkut ak mag ña mu jële aw yoon daarul moxti ba Touba jële aw yoon koso ba daarul moxti waaye jële ko itam ndooyeen ba daarul moxti ak feneen ak feneen fu ma xamul xëy na kon loolu la muy tegtal mooy nit la woon ku mot koo xamante ne daarul moxti mënuñu woon a ñàkk ko mel ni moom gis nga seko bi moo ko fi indi ay nu gii machine ba doon kii ndox mi ndox mi di génn nit ñi di ci mën a naan te ndox ba suñ mor ab jëbu moo ko fi indi kon borom njariñ la woon loo xamante ne daarul moxteeg askan daaru moxti li ko wër duñu ko fàtte siñ seex kon daal jàmbaar la woon yoo xamante ne ëpp na di bañ a waxtaane ndax ñaare léeg-léeg nga waxtaane koo xamante ne ndëggoom jotul ndëggub sëñ mor jëbu kon nag jëmu ji moom doonul koo xamante ne ku ñuy fàtte la doonul koo xamante ne koo xamante ne waxtaan la woo xamante ne dañoo war di waxtaane mbiram ngir doomu aadama yi di si jànge jëfam ju baax ak ak rafetalam sëñ sëñ seex Euh, barakala Serigne Aïdara saw euh, yaakaar naa ne képp ku xamoon te fàtte fàttaliku nga képp ku xamoon itam yaakaar naa ne euh, dolliku nga ci junduk sëriñ Mor Diabo ak kan mooy Serigne Mor ak diggam ak maam Thierno Birahim ak li nga xam ne liggéey na ko ci diiwaanu Daarul Moxti mu nekk koo xam ne eh, jëmm la joo xam ne waa Daarul Moxti duutuñu ko fàtte ngir li mu liggéey ci Daarul Moxti yaakaar naa ni loolu ñëpp bàyyi nañ ko xel kon Serigne Aïdara ñu ngi lay sant bu baax a baax ci ci yooyu kon xam naa itam mm, ba tey dañuy jàll ci sëriñ Abdul Xudus euh, mi nga xam ni mooy woote bis bi tey waaye sëriñ Abdul Xudus ñu gis ne euh, ñu bëree bëri euh, bu ñuy fàttaliku dañuy fàttaliku bisu feeñ bi wala bis bi nga xam ni moom la moom la moom la fi moom la fi jóge waaye yow nga tànn bis boo joxe woon ndigal tànn ngir xool li mu tubaab bi na mu toll boobu noonu di ko si di ko si di ko si di ko si wooteel ban yëg-yëg nga si am ci loolu noonu aousubillahi mina seytaani rajim wa inni a bi kaw siriyataha mina seytaani rajim barki sëriñ Tuubaa ñu ngi leen nuyu baax te leen ziar lu bare bari di ziaram boole seen mbokk fi teew yëpp di jiite ci ne bi ak ziar bi nag suñu kilifa yi diine ñoo nekk ci suñu kanam sëriñ Abbas Mbacke xalif borom Daaru Muxti sëriñ Muntaxa Mbacke xalifa Seexul Xadim sëriñ Maam Mor Jëbu Mbacke xalifa sëriñ Mor Jëbu waaye juróom sëriñ Maam Koso xalifa sëriñ Modou Xarim Mbacke ak mboolem ñu ngi bokkal kër gi ñëpp ni ki sëriñ Daam Mbàkke Ahmadul Xari xalifab sëriñ Mbàkke Jam sëriñ Mamoor Mbàkke Thiès xalifab sëriñ Cerno Mbàkke Magat Lay sëriñ Abdul Xuddus Mbàkke xalifab sëriñ Taala sëriñ Ñang njaboot sëriñ njaboot soxna Asu Mbàkke di rafet lu baax a baax liggéey bi ak ni muy doxee di ziara mboolem mbokki fi teew yëpp tarkal la di leen ziara waa yéen waa Ndayane Vision di ziara sëriñ Seex sëriñ Moustapha Mbàkke sëriñ Moodu mi ñu bokkal jotaay bi sëriñ Mamoor Koso sëriñ Aydara ci kàddu yu matal yu am solo yi nga xam ne si génn nga fi léegi sëriñ Basiru Mbàkke sëriñ Taala ak mboole seen mbokki soxna yëpp tarkal la di lu baax liggéey bi ak ni muy doxee tarkaal la Serigne Cheikh da nga ma laaj ne ma ban yëg-yëg la am ci bis bi ñu xam si nañ ko fàttal dañu ko fàttali ko sëñ Mor Diabou bis bu nekk ak la ca ci lañ gënantee ci la bis yi gënantee sëñ Mor Diabou nag jëmm la joo xam ne bis boo ko tànn rek am na solo mag nee bi mu nelawee sëñ Daara mu teg doon ñaar ba ci ñeent fukki guddi ya mu wax ci waxam juree joojee ku ma fekkul fii jaasi ma ko bis ma wàcceeb liggéey bul ma jaale mag nee na ma bi mu wàcceeb liggéey am na ko ne duma ma lekk cere yi daj daarul moo ci dégg ko ne ku du lekk cere yi koy ba fa sama ñam weer yi ma ñàkk mu bu Mbàkke jumaadal aaxir di maamu koor ba ba muy dellu si déwén lu ma fi sëgg ren moom laa ko dajale sëñ Mor Jabu moom la moom rek la sëriñ Touba jëli woon loolu bis la ci bis yi sëñ Mor Jabu moom la sëñ Touba ñàkk la woon barab ma bàllaay sa comme ni ko sëñ Aydara Sow andee woon kooku bis la ci bis yi ñaari fukk ak ñett ci weeru maamu koor ci la wàcce woon lig wàcce woon ab liggéey sëñ Daaru Muxti wax ci wax yu wax yu wax yu bare bare te te te te te te te màgg lool loolu it bis la ci bis yi waaye nag bis bi ma gën a marqué ci moom mooy bis bi nga xam si ne mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm bis bi ko sëriñ bi yebale woon ngir mu dem wàññi soldat si xam nañu toll xam nañu waaje dellu si wax ko sëriñ Touba jàngatkat yi nañ ci jàngat lu bari des na ci jàngat taalibe bu dégg ndigalu sëriñam des na jàng loolu ñu cofeel la ak ak diggante ak rakk kon ni ñu mën a jàngat ci bis bari na loolu waaye jàpp na ne ci sunu xel mu gàtt bis gënt bis boobu ci ñun bis gënt a màgg bis boobu ci ñun ndax mooy bis bi nga xam si mës na jàngal lu baree bare bari bis boobu yi nag yàlla dogal mu nekkoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm dëpp woon ak sori 11 juin 1903 ñu di ko màggal at mu jot fii ci këram ci kër sëñ mooy jëm seen mbokk yëpp tarkaa la ren ji di juróom-benneel bi yoon bi sixième sixième édition bi euh, ñu am ci yëggu rëy rëy wax dëgg yàlla yéegi waxam se ni xañ na suñu laam suñu xel dana ko laaj waaye suñu laam yi ñu ko du ko a tudd ndax ñun dañoo bàkkee ne ab daanukat lanu waaye nag ñun moom ñooy soldaaru suñu Mor Jabu moom rek la ñuy nooyee nag moom la ñuy wàll moom la ñuy waaji moom la ñuy wàllee loolu moom nangu nañ ko Euh, kon xam naa yëg yi bu ci am loolu ngir ma génne ko dana dana dana jafe loolu Serigne Cheikh laaj bi nga ma laaj moo wax a waree ci man loolu moo tax a a la mën <laughs> euh, moo tax sax xam naa ne yëg yi boobu ci laa doon waxee naan fukk ak juróom-ñaar di rabiul awali waa ju ko te bamba dalle jàllale bisu ma daa màggal te daa ko woote fa daaru mooti xëy na dellu seeti euh, su ngeen ma digli woon ma fàttaleeti la tax ma woote ak ka tax ma woote Serigne Mamar Jëboo waral ma woote ca weeru gàmmu wa bu kenn wuute waa ju ko màggal di ko màggal ba jar na mel ne waaju teewe xasuutul ba dar mbaa di xunay ni mbaa uhud mbaa xay bara di xuuse noonu la rek mel ne ay dara euh, kon bis boobu li mooy illa bi li mooy tax ñu koy woote itam yéegi bii itam lañ ci am ba di ko woote